jàkkaarloog caatu yof loo koy yebe waaw comme ni ñu ko doon yebee rek comme ni mu doon waajalee rek fulaak fayda lañ ko xamee ak jom te xam ne lamb ji soxla la waaw te dafa war a am ndam ci kàttanu suñu borom te loolu lañ bëgg daal incha allah oui. loolu nga koy yebe daal. waaw loolu lañ koy yebe ah. amul leneen parce que xale la te mi liggéey te yaakaar naa ne booy waru ko téye quoi te du ko téye incha allah rabbi incha allah bu neexee yàlla naa la. waaw siyaar nañ la encore une fois ak Pape Thiam. mooy li ñu ngi waajal pour dimanche. waaw ñu ngi waajal rek lépp tamit géejewaay la rek. di ko ñaanal yàlla yàlla mooy ko ndam dimanche daal. si kaw caatu yoof. ak caatu yoof dimanche est ce que loolu dana yomb. non lamb capital la. moro ñu ñu si. waaw. kon ni ko gunge dimanche. ñoo ngi koy gunge kon def la rek yéen a ngi koy def. géejewaay 100 pour 100 géejewaay rek. ci ginnaaw Pape Thiam. defal nañ ko loolu yéen Pape Thiam defal. incha allah. lii de xanaa mooy monument géej waay comme ni ma ko waxee boppam. waa tey pàcc nga maye tey. waaw c'est normal ci tàngaay bi nekk été bi. waa liiru nag pàcc yi ngay sol yow itam. ay pàcc yeeg chaque jour. dafa tàng. dafa tàng. loolu nag ngay dóor say pàcc. waaw waaw dafa tàng waaw. li yee sa singom. rek Sénégal jëm kanam. tooñu ma kenn bu ma kenn tooñ. ku lay ku lay sañ a ah, am na ñuy tooñ. kon am ku lay na ñuy tooñ ma tooñ waaye am na ñoo xam ne ñuy tooñ am sa doomu ndey. Kanté Youssou Ndoye. Youssou Ndoye sa baskër mag bu nekk ci mbayaay laa ilaaha illa kenn Youssou Ndoye waaw kenn Youssou Ndoye. gis naa la parce que dama gis géej yooyu fu fu fu mu amee ci làmb ñu gis Lirou Diane teew Pape Thiam war a bëri dimanche. loolu mooy sama cër ndax ñoom ñëpp samay rakk lan te maa jox cër ku ma joxoon sama cër doo ma gis fenn ku ma jox sama tey cër booy ku ci def Papa Ndiaye wala day yëkkati téléphone woo xam nga loolu dafa neex. dafa fort moo tax may def déplacement ñëw ñun xale yi géejawaay xale yi xale yi man may seen mag ñu booloo nekk ba xam nga lii dama neex ku ci am bis ñoom ñëpp ñu teew xam nga dafa rafet yàlla Sénégal Sénégal jëm kanam. daal dimanche da nga yaakaar da ñu dem jëli ndam wala. waaw xam nga lii dafa neex ñun dañoo am promoteur mu dëkk géejawaay muy jéel seen di jàppale xale yi lii dafa neex dëkk géejawaay pare di jàppale xale yi di leen tëggal dafa neex yàlla jëm kanam yàlla jëm kanam waaye booy bi ñoo koy ñaanal Pape Thiam yàlla suturaal ko te may ko ndam lu sedd guy ñu ñëw géej way feet fet sëpp waaw Matar Gueye sama benn waay la bu nekk Espagne. yaa ngay jàddati non non non xam nga man dama am ñu may bëggee. xam nga dafa am ñu may bëggee moo tax man bëgguma wax bu ñaaw. non lu ñaaw kenn waru koo wax. expliqué dafa am ñu fi nekk nag di wax lu ñaaw. non ñoo jërul leerul nag. non am yoo xam dafa jarul dañ fee nekk di wax lu ñaaw te man bëggumay wax daa kuma wax lu ñaaw. jarul ko waaw non dama lay expliqué. yàlla bëgg ko non ma man daa am ñu may bëggee ma bëgg moo tax lu may wax rek day rafet bëgguma wax lu ñaaw comprendre te am na ñoo xam ne vraiment wax yi ñuy wax dafa ñaaw dafa salté dafa salté dafa ñaaw man damay rus su ma koy déglu damay rus am na benn vidéo bu ma doon déglu non déglu ma ndooy di ko wax dama jooy sax def naa ko jooy jooy def na ndax xam nga lu am na yoo xam dafa dafa tull non déglu ma dama yàgg ku mu neex nga far ku mu neex nga far fa nga dëkk nga faral ko waaye nag ah wax bu ñaaw baaxul na rafet na wax bu rafet. ah dinaa amul solo Balla Gaye tooñul kenn Lac de Guiers tooñul kenn man tooñu ma kenn am nañ droit fu ñu dëkk ñu défendre ko am na fu droit fu ñu dëkk ñu défendre ko waaye wax bu ñaaw baaxul ah na rafet na rafet dañoo fi gis dafay jeex. loo fi gis dafay jàpp fonde ba këpp na. ban fonde këpp. non fonde booy ñaar bi këpp na. ah ni ne kaas des na fa. ban kaas. fonde ko këpp ba xalam fonde ba xalam lu ko nit di naanee këpp na. kaas kay desatu fa moom kay dara desatu fa dara desatu fa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan jàmm yàlla jàmm sax Guédiawaye yàlla jàmm sax Sénégal équipe nationale final bi àjjuma waaw sama gars yi équipe nationale Sadio Mané c'est mon ami yàlla ko yàlla defal jàmm. incha allah maa am nga jàmm gabar. waaw maa ngi sant yàlla. naka géejewaay. waaw géejewaay ngi nii di neex rek xam nga géejewaay daa neex. waaw. surtout fan yii sax fan yii daa gën a neex. gën a neex ci la ah? ah di bëri di am ndam. <laughs> bu dee moom defe naa na ndam amul. non euh, xam nga lu neex. xam nga lu neex. ñay seetaan. ak ñan nekk ci stade ba. ak ñan nekk seen biir kër te toog taal seen télé. bu ñu xamee ne ndam am rek jeex jeex na. léegi ki amagul ndam mooy Pape Thiam mi pour dimanche est ce que dina am ndam. bu soobee yàlla day am ndam xam nga Guédiawaye ndam moom rek ñun dañoo gëm suñu bopp de boo gisee gars yi ñoo laal dañoo gëm suñu bopp de. caatu Yoff de laal na leen. waaw waaw waaw caatu caatu daa xamul rek waaw xanaa gisoo Gamar Sine bi toog jàpp ñaamuram gars yi xoolal boo nee Gamar Sine day mel ni dañ leen dóor yëpp gars yëpp ay moytu gis nga bi waaw <laughs> xoolal wuy ma xam ci luy baax la ruq bi sedd amu ci ruq bi sedd amu ci dabar ba rek da ba dimanche bu soobee yàlla <laughs> waa saak mi kër ga dama la gis dimanche door ngan nam saak waa c'est normal bis bee ko laajoon rek daw rek waa xam rek bis bee ko sama doom ndey sama seex sama xarit xewle dafa mu bugg ma naan fay doom waaw noonu la demee daal waaw looloo waral ma gàddu saak ak leneen ak leneen ak leneen mu mel ni tamit seetlu naa tamit jigéen yooyu Alioune Seye xale sax maanaam kuy organiser mbirum daal ma gis ko ci lan moo xew sa diggante mbëru Géejawaay waa dañ ciy sant yàlla rek waaw jàmm rek moo xew suma diggante mbëru Géejawaay ndax ñëpp a ma jox cër wax dëgg yàlla ama frontière benn ci igiri soo gisee man su ma ñëwee igiri Pape Kane damay bokk su ma nee euh, waal damay bokk école Balla Gaye euh, père moo faral ñëpp damay bokk moo tax xam nga ñu ñoo bokk ne ñoo bokk baay ñoo bokk Géejawaay loo xam ne mënuñu ko séddoo kon nag dañu fexe mu rafet rek ku xewle rek ñu teewal ko ba yàlla defal la ndam xale bi bëre dimanche Pape Thiam moog Caatu Yoff xam nga Caatu Yoff waaw Caatu Yoff xam naa ko bu baax ndaanaan la wax dëgg yàlla est-ce na ci moom dara non na ci moom dara ba mënul keneen ku moom moom hmm. waaw ndax ku xam ne Pape Thiam ne champion la ndax su fi deful woon dara ko jël Caatu Yoff du ko jël kon dimanche yaa koy indi non na ma koy indi ëpp na hmm. damay gàdduwaat saak bi sax saak bi day ñëw non saak <laughs> kon ba dimanche ba dimanche incha allah jërëjëf ndeysaan kalaa ya ngi galaay ci sabar yi c'est bon galaay sama mag ji rek Serif Gueye ak laay càmm mi barki sëñ Bamba laay Samb mii ak Cheikh Ibra gaa nekk ay Baye Fall barki sëñ Bamba. mais waay kon nar naa fecc lu garaaw dimanche. yee kenn dootu ko defati ñun géejawaay nii la ñuy dëkkee am rek ñëw kese. takkal sa sër taala takk nañu seeni sër waaw waaw seex seeni soccu waaw am na lu may fàttali eh papa Thiam takk na sër waaw mbete Wally Seck waaw wala Ndeye Sy wala Mbaye Sy waaw waaw dégg nga waaw eh way am na loo gisul nag Babacar nga ne ma mooy verte zone rouge drapeau réew mi waaw waaw di jàppale Lions yi yàlla ñu am ndam yàlla ñu jël final waaw waaw Babacar xalaat la Talla Ndiaye waaw waaw waaw waaw ee eh, waay ah, ah, liiru liiru déet waay jox nañ ko téléphone ndeysaan laaj ñëw na nit buy sonn sa bés da ngay teew ci bésam ñaanal yàlla yàlla ba ndam yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mouhamed Lac de Guiers dox ju am cër ci moo tax ma ne tey damay bàyyi sama yitte yëpp daw ñëw am fu ma waroon dem ma damay bàyyi sama yitte daw ñëw waaw mais solo diggante ak Boy Niang waaw tey ñëpp di wax kat ab amul ñu naan am na tey la wax si loolu waaw mais dañuy sant yàlla rek bëri nañ ñëpp gis nañ Sénégal ñëpp gis nañ li am ndam lu rëy xam ñaari jël ci benn tàkkusaan bu amee demee ba am da ngay def recours wala ah mais recours am na recours am na am nañ kilifa dañ bàyyi lépp suñu xol kilifa gi rek xam lu ma lay laajam 100 pour cent géejawaay bi daa ni 100 pour cent géejawaay bi da ngeen koy dundal actuellement waaw mais dañ koy dund 100 pour cent géejawaay am na ba pare te day day continuer xale yi ndaw yeeg ñëpp ku ci am combat am nañ ñëw teewlu teewlu sa bés waaw. kon dimanche mën nañ la xaar sax. bu neexee yàlla Pape Thiam mooy bëre nag dafa ñëw. fa nga ñëw boo ndax sama rakk mu ngi ciy bëre tamit muy Jackson di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ci ndam tamit moom Pape Thiam yëpp waaw. mais yaa ngi dallu. ah mais dañuy dallu sonn nañ trop ci combat bi. waaw. waaw. waaw la seet sama xol mais na la yàlla kontaan naa quoi ak sëñ Touba. yal na la yàlla may na ko yàlla na ko yaa def leen nuyu bu baax aw ma seen fay ah. du nuyu sama sëriñ sëñ Fallou Mbacke mu sëñ Ateex di ko ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ay cëram du nuyu Baye Karim yéen journaliste yi. waaw tey jii booy bi ndaanaan la tey nga jël combat boobu waa Guédiawaye topp sa ginnaaw tey combat bi nga jëm lan la la jaral ak looy yóbbul waa Guédiawaye boobaa incha allah. waaw lii ma gis fii daf may yokk jom quoi ndax bu ma doon def benn bu yoboo ma yokko ko ndax Guédiawaye am nañ si man yaakaar. combat bi man ak Thiatou Yoff tegee naa ko côté incha allahu rabbi képp kuy bëggee Pape Thiam bu la 21 na sax waaye na nga sañse lu rafet ñëw toog bu dee ndam incha allahu rabbi dinaa la ko indil lu ma gëm la. te incha allahu rabbi lépp lu may wax fii dama koy appliqué bu jour ba. moom nee na démb nee na moom mooy xeex mooy bëre te moom wane man nekkuma damaa màgg rek ñun ma demal bëre ñu man damaa tarbiyu samay mag damaa jàng bëre ba mokkal ko bu ma la daanee nii tey suba leneen laa lay daanee kon nekkul loo xam ni ay waxi kacaw kacaw la caatu yow bu jour ba fu mu taxaw mu fekk ko fa. billaahi awma lu may. moo daan ñu mu daan daanoo leen loo koy ba may gën a néew kàttan laa ko fekk adressé moo daan ko jël bu rëy tegee naa loolu côté xala màgg na liggéey naa loo xam ne bu neexee yàlla ak yonent bi bu la 21 wee loxo der gémmañ Pape euh, caatu yof dana géejawaay da koo miin daan na fi gàkku dee bu yàggul gëju fi daal maanaam dana duggaatam bi itam ndam lu leer lay doon ndax doole moo la këpp moo la dàq bëre waaw bu waxee loolu day wax lu ko neex man déggoo man na damaa tarbiyu samay mag ku si mel ni Marley ak Gabaar dama leen a tarbiyu topp leen fu ne ñu jàngal ma bëre daf si man xam-xam boo xam képp kuy tax ngeen boo taxawee sa kaman pour man dama lay fël rek dem seeti leneen Caatu Yoff bu ne moo ma dàq bëre day wax lu ko neex. bu jour ba bu sumeekoo ma taxaw ma sumee ko yéen naa yi di ngeen xam ko ëpp doole. ma la bëgg a laaj maanaam dañu gis tey maanaam génn way génn bëri génn. mais ku mel ni Lac de Guiers numéro 2 mu teew ma gis nga wax ak moom ba mel ni sa yaram dafa tàng loolu lan lay def ci yow. waa daf ma defal lu rëy gis nga lii mu ma defal nii dafa rëy si man ndax champion yi bëri nañ fi mu jugee si bis berki Demba Ndiaye dagg ay yitteem ñëw teewal ma ndax jëmm ju ndaw ji xam nga dama koy ñaanal yàlla guddal fanam li nekk si carrière mu doon ay ndam ndax li may wax nii sama xol laa ko tubbee damay ñaan yàlla li nekk si carrière am la dëgër deux mu doon ay ndami ndam. ak bépp mbëru géejawaay buy takk sër loolu laa lay ñaanal ku si mel ni Balla Gaye xam nga Alioune Seye aw ma fayam Pambaay day dagg ay yitteem di ma ñëw di ma jàppale entraînement képp kuy mbër rek dëkk géejawaay sant naa la gërëm naa la waaw di la ñaanal li seen kanam dàq daal. Pape Thiam Thiatou Yoff nee na yéen ñaar ñi mu daan daanoo leen ñi mu bëree bëree ak ñooñu nee na problème adversaire leen boole. man dama daan samay morom man daanuma benn paa man booy aussi lamb ji yëpp dama leen a daan. ku daan tigoo jurul ngay lim ñeneen ñi est-ce que yaa ngi comprendre déggoo man nag adhéré Senghor laa ko fekk jàngal ko bëre jox ko paas mu ñibbi yoof te incha allahu rabi la 21 dinaa ko jàngal bëre soo koo daan bu soobee yàlla. côté masse bi dama gis yéen ñaar gis naa ko démb masse bi ma ak masse bi nga yor boo xool dafa mel ni moo lépp masse dafa lépp doole wala wala wala masse lépp li wala. caatu yoof mënu maa ëpp doole man may xare di daj lu metti di yéeg si diini di escouade ay nangami kilo kon war na maa mun a ëpp doole yow dimanche gisoo fi Lac de Guiers léegi loolu rek ut na wax ji ñeneen ñi sax du ma leen lim quoi ku si mel ni Marley kooku daf maa jàngal ba munatuma gabaar sama ginnaaw Alioune Seye Omar Fall muuma kii kan moo ko dàq bëri si àdduna amul amul kon caatu Yoff déggoo man la awma lu may sóoraale si moom xam nga lan laay sant samay supporters ñu sañse lu rafet teel a dem istaat incha allahu rabbi ma indi leen ndam le ñu def benn que na nga ko bëgg a lii lutte frappe xeex ak bëre bokkuñu déggoo man la bëre simple man pour man moo gën a métti bëre dóor bëre dóor jaar jàll la rek te incha allahu rabi bu la 21 di nga xam ne jaar jàll la caatu yof awma lu may moytu su moom du suma dara bu arbitre génnee loxoom na dëggal boppam fu mu taxaw ma fekk ko fa te moo ko jàppee day tëdd for force waaye lii rek dal la xel nga kan mooy ëpp la moo bala jour bi waa géej bu ñu jugee waa dëgg rek te yàlla tax amul benn autorité bu ñëw jàppale Pape Thiam amul quoi def naa samay démarche nag wax naa li ma war a wax yu bind naa sama lettre yu joxe mais nag coo maa ngi ak samay yoo xam ni sonnu ma benn yoon ku si mel ni sama papa Xaarim Gueye aw ma fayam kooku Kéba sama doomu nday aw ma fayam xam nga Ousmane Ndiaye ñooñu dañuy sonn si man di yëgal seen moonin di ma ko def ku si mel ni Tafa seek borom Paris ñooñu aw ma seen fay ay saan mbii mi xam nga sama mag Pam Ndiaye borom Espagne bërgi dem Modou Gueye xam nga di woo waa Kër Massar M3 unité 15 xam nga sama yaay fa lay yeewoo maa ngi leen di woo waa Géejawaay fii maa ngi leen di woo bu baax a baax ku si nekk pour la 21 nga def teew di woo Ibou Ndiaye Darame xam nga di woo képp koo xam ne da ngay bëggee Pape maa ngi lay woo bu baax a baax di woo xam nga ku si mel ni Moussa